fani yep dañuy romandat ci réew mi ne ci bir APR dafa am ño xamanteni bu doon sen sago ñu reporter élection te le fait que ñuy encourager démarche PDS bi dafa dëppoo ak liñuy ragal ne ñenn ñi dañu am intérêt ci reporter élection mo ma di wax ñom ñi encourager lolu ne leen benn bi reporter élection mom, man bokk na ci sénégalais yi nga xamné bëss buñ ko yëkkatee danaa jakarlo ak ñi ko yëkëti ndax réew mi nak moo ñu ëpp ñun ñëpp loolu lañu président Macky Sall yàgg di fàttali. d'accord le pays la patrie avant le parti. d'accord ñaarël bi. moy bëss buñu waxé ba jëf report élection euh, dinañ yàq li Macky Sall liggéeyoon lépp parce que ko xamanteni su dee ci bilan matériel adduna bi yëpp d'accord na fi mu yóbbu Sénégal gàcce ngalaam bu dee ci rayonnement réew mi euh, jaar na fi Union africaine porte fi ay discours yu am solo euh, yu jëm ci climat yu jëm ci euh, souveraineté Afrique ba nga xam ne tey jii kooku li ñu ko mën jàppale mooy rafetal gunge gi ñuy gunge ba keroog.

damay rappeler ne. 2019. Karim Wade nekkoon na candidat ñu éliminé ko benn. damay rappeler ne législative yi passé dañu éliminer liste proportionnelle tutélaire bu yeewi askan bi terewul élection am damay rappeler ne Karim Wade bokkul waaye Ousmane ko bokkul am na ñeneen ñu bokkul sénégalais yi ñoo yem donte Karim Wade turam rëy na doomu Ablaye Wade la amul kenn ku am maqaama. ndax yow bokkuloo rek réew mi dañ ko war a arrêté te waa PDS di samay xarit ma am ci ay xarit yu bëri dama leen bëgg a woo à la sérénité question bu mel nii ñoom dañ ci war a maandu bu baax nañu rappelé 93 nañu rappelé ni ñu accusé woon PDS ci wàllu conseil constitutionnel nañu rappelé maître Babacar Seye bi ko boomee nañu rappelé ne tension boobu ba muy créé wu kenn xalaatul woon ne résultat boobu dinañ ci yegg si mën na leen nañu am sérénité